DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bëss ko sa notification loolu moy tax vidéo mu duggal rek nga man ci jóg leen fàtte aimer partager ja ngeen jëf yu dot li leen digalul sëriñ bi sëriñ bi dafa wax né ñi yëngu ci dëkk bi nañu déllu ci kër yi warmaale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax né ñi yëngu ci dëkk bi ñi yëngu ci dëkk bii di Touba nañu dellu ca kër ya warmaale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne jox na ndigal bépp taalibe bu yaakaar sëriñ Touba képp kuy yëngu ci dëkk bi ñu dellu ci kër yi ngir warmaale ko sëriñ bi ndigal laa ngoog